فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإن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 فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم bismillahi macha allah bismillahi macha allah jërëjëf mu mel ni ñu baree baree bari xëy na ñu ngi laaj ab question lu waral jotaay bi wala boog li ñu miinoon ci concours alquran ndax moom ak bii nu ñu def ñu wax leen ni suñ borom subhanahu wa taala ci ak mbaaxam dafa wax ci alquranul ni inna nahnu na zikra wa inna lahu la xaafizun man suñu borom subhanahu wa taala man day maa bind alquran wàccee ko mu nekk fastamsik billazi uxiya ilayk innaka ala siraatin mustaqim wa innahu la zikrun laka wa li xawmik waaye nag li ci suñ borom tëjee mooy solo mooy baat bii wa sawfa tusaluun mu mel ni alxuraan teraanga la ci nit ñi waaye nag ba mu nekkee teraanga ba noppi responsabilité la mooy dañ koo war a wattu wattu googu nag mooy li suñu borom wax ci wa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun yàlla suñu borom buy def dara du moom mooy wàcc di ko def waaye day jël ay nit ñu sell dénk leen mission bi ñu di ko def mooy wa sawfa tusalun bu ko defee nag ñëpp bu ñu sàgganee alxuraan ëllëg yawmal xiyaam suñu borom ne leen wa innahu la zikru laka wa li xawmika noonu leen def ak moom kon lii responsabilité la moo tax ñu def lii Cheikh Bachir concours alxuraan bi li ko waral Sénégal bari na ay concours alxuraan lépp nag ngir sargal ñooñ alxuraanul karim waaye bii dafa spécial c'est la première fois ci àdduna laa wax ci àdduna ba àdduna sosoo ba tey tey jii lañ mus a gis concours alxuraan boo xamante ni dañ koo jagleel ay commerçant maanaam ay ndongo daara yoo xamante ni ba ñu génnee daara ñii mat na ñaar fukki at ñii mat na fukki at waaye daa am lu ñu ne du ko doxal ndax gëm mission suñu borom ni wabtaxi fii ma aataaka llaahu daara al axira waaye nag wala tansa nasiibaka min ad-dunya saa yoo nekkee ci àdduna da ngay xam ni da am àdduna ak alaaxira moo la tax a jóg ñooñu nag ñu ne segam jàng nañ téereb suñu borom subhanahu wa taala nag dafa am lu leen suñu borom wax mooy lan fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifa li yatafaqahu fi diini waaye nag wa li yunziru xawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxzaruun da dangay dem jàngi téereb suñu borom ba xam ko waaye dugg ci biir société bi nag ngir boo demee ña nga fa fekk nga defar leen commerçant yooyu nag lañu tànn seggi leen fekk leen fépp fu ñu nekk ci biir Sénégal ba ca raison ba gën a sori muy Kédougou Tambacounda ak fu mën a doon dem nañ fa association taxawu daara fekk fa commerçant yooyu noonu fitt leen xayma leen xayma seen alxuraanul karim ak seenug sell ak lan seenub taxawaay ci participation développement réew mi loolu la ñu gis moo tax ñu xalaat ni kon nañu créer concours boo xamante ni waa daara lay doon certes waaye ñi nga xamante ni ñi ngi ci beneen détachement di liggéeyee feneen foo xamante ni ak jaamu yàlla mooy lan dàq seen wërsëg ñooñu la ñu jël nag tànn leen ngir bu ñu génnaatee fii fu ñu dellu ñu xam ne alxuraanu karim teral na leen loolu mooy yitte ji ñooñu la ñu jël feeñal leen ngir ñu xam ne Sénégal ni ñuy gañee concours international ci àdduna fu mu mën a nekk waaye ndeke am nañ ay doomu daara yoo xamante ni ñooñu it foo leen fekk ñi ngi ci alxuraanu karim donte ay commerçant lañ loolu moo waral ñu samp li nga xamante ni moo di concours bi concours bi nag yéen a ji rafet na waaye ku ne xam na ni du nekkul loo sumb rek ci artu Sénégal mu yomb yombul ndax lan dafa am benn philosophie boo xamante ni Cheikh Bachir bokkul ci li mu gëm mooy lan jàpp nañu Sénégal lépp loo fi organisé faw nga woo nitu àdduna yi d'abord faw nga dem ci média yi ngir lan ngir wàccee sa bopp ngir mën leen a yalwaan ñu mën a taxawal lépp loo bëgg a taxawal loolu dese naa sell boo nekkee ci alxuraan suñu borom subhanahu wa taala bëggul lu rax ab liggéeyam moo tax Cheikh basiir sukkandiku ci ñi nga xamante ni dañoo bokk ñi ña suñu borom waxoon ci alxuraanu karim nga xam ni tafiidu min ad-dam'i xasana allaa yajidu maa yunfiqun ñooñu day foo wootee woote suñu borom subhaanahu wa dañuy taaba taaba ñi yor téeméer ñi yor ñaar fukk ñëw dugal ko ci liggéey suñu borom bi loolu moo waral lii loolu moo tax lii sotti beneen bi ki ñu ko tuddee li ñu miin Sénégal mooy booy tuddee nit da yaakaar ca moom dara mooy yaakaar juróom millions yu mu la jox wala leneen déedéet Cheikh Bachir gisul loolu dani comme mbiru alxuraan la moom gis na ni fii ci Sénégal am na ñoo xamante ni mën nañ alxuraan bari nañ waaye mu ni naa tànn nit koo xamante ni nag bis boo ko tànnee dinañu dëgg-dëgg yelloo na ko mooy sëñ Mouhamad Tine sëriñ Mouhamad Tine fa innaha la taamal absar walakin taamal xulubu allati fi sudur loolu la suñu borom subhanahu wa taala wax du bët du bët du bët mooy gumba waaye xolub doomu aadama mooy gumba sëñ Muhammad tin suñu borom subhanahu wa taala ci bushra ci xikma la ko suñu borom subhanahu wa taala déy li nga xamante ni moo di alquranu karim mu def ak ngóorgóorlu ak njàmbaar ci ay déglu ba mokkal li nga xamante ni moo di téere suñu borom subhanahu wa taala kooku la ñu darajaale bis bi mu nekk ñëpp war a xam mu nekk yitte ci ñu war a xam ni nit ki rek suñu borom subhanahu wa taala waxam laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bihi inna alayna jamaahu wa qur'ana boo amee yitte rek suñu borom subhanahu wa taala rek moom mooy def yitte ngir lan jàllale alquran ci yow insha allah ki lay fi teew insha allah dinañ leen tudd benn par benn kon sëñ Ndiassé dinañ la woo nga ñëw barkeelu ci lu gàtt insha allah waaye balaa boobu dañuy woo candidat yi ñi nga xam ne ñoom lañ dara jaale bis kenn par kenn insha allah ñu tabbi ngir ñu mën leen a waaw insha allah ñii nag ngeen xam ne ay commerçant lañ ay commerçant lañ ñii ñi ngi ci taaba taaba waaw ñii ay mécanicien lañ ñii ay tailleur loolu yaakaar naa baaxuwuñ koo gis ci àdduna c'est la première fois mu am fii ci àdduna lii mooy yitte ji mooy lan soññ képp koo xamante ni yor nga alxuraan ak foo mën a nekk donte commerçant nga nga xam ni wa sawfa tusaluun alxuraan kenn waru ko mokkal di ko fàtte ak loo nekk ci yitte yi àdduna moo tax Cheikh Basir indi programme bii ngir soññi commerçant yi kon ñi ngi koy delloo njukkal di ko ñaanal ci yitte ji ak xalaat bu rafet boobu kon bismillah candidat bu Ziguinchor sëñ Mouhamadul Amin Fall candidat bu soor moom moo fi teewal li nga xamante ni moo di région de nekk ab commerçant aussi sëriñ Mouhamed Al Amin Fall ki ci topp Serigne Abdoulaye Dieng di candidat région de Sédhiou Sédhiou sëriñ Mouhamad Amin Fall candidat Sédhiou bismillah d'accord Serigne Al Amin Fall dangay jaar ci taabul ji nga tànn benn question bu ko defee ñu bind sa nga xam ne laaj bi anonymat lay doon li nga tànn rek lañ lay laaj waaw kii mooy sëñ Mouhamadou Amine Fall moo teewal région de Ziguinchor waa Ziguinchor kii moo jara ndamoo kii mooy seen doom moom day commerçant la nee na day jaay ay yére waaye naa gis nga ko alxuraan a ngi ci dëndam lii la suñu borom bëggoon lii la Cheikh Mouhamadul Mourtada yéene woon mooy lan wal takum minkum umma yad'una ilal xayr loolu mooy yitte ji sëñ Mouhamadou Amine bismillah jërëjëf sëñ Abdoulaye Dieng Sédhiou candidat bu ñu woo rek day tànn benn këyit ñu bind ci turam bu ko defee loolu mooy doon ay question ñu wax leen ni kon am nañ fi 135 aaya alxuraan yoo xam ne dañ koo tànn candidat bu nekk li nga tànn rek dañ lay laaj ci benn ci yooyu kon kii mooy candidat wu de Sédhiou incha allah baax na jërëjëf sëñ bi sëriñ Dame Diop Louga sëriñ Dame Diop raison de Louga région de Louga nga tànn fi benn question ñu bind sa tur Serigne Dame Diop moom commerçant la kenkaayira lay jaay waaw bismillah kon Serigne Baye moor Ndongo région de Kolda moom it mooy kandidaa région de Kolda commerçant la moom aussi voilà mu ngoog bismillah tànnal benn sëriñ Baye Mor Ndongo dangay tànn benn ci question yi mooy doon sab laaj candidat Fatick Ousseynou Ndiaye Ousseynou Ndiaye mooy candidat raison de Louga Fatick Ousseynou Ndiaye moom commerçant la bismillah Serigne Salih kii mooy Serigne Salih Khoule moom moo fi teewal raison de Kaolack commerçant la moom tamit bismillah da ngay tànn fii benn laaj bu ko defee mooy doon sa question incha allahu keneen ki muy candidat Kédougou Serigne Bàcci Ndiaye Serigne Bàcci Ndiaye aussi commerçant la moom tamit waa daara ji dañoo ne ci marché yi macha allah candidat bu ndar Serigne Omar Gueye candidat bu Ndar sëriñ Omar Gueye moom it commerçant la ci kenkaayir la nekk démarcheur waaw ah moom démarcheur la nee na commerçant démarcheur mooy ñi nga xam ñooy yombal nit ñi daal ba ñu mën a am marchandise commerçant yi dinañ ko xam bismillah candidat Thiès sëriñ aboo Jaxate sëriñ aboo Jaxate candidat réseau de Thiès waaw kii sëriñ aboo Jaxate Thiès nee na moom cosmétique la yor cosmétique la yor kon jëlal fi benn question mu doon sab laaj bu soobee yàlla Mouhamad Fall dakaar Serigne Mouhamad Fall Dakar sëriñ Mouhamad Fall dakaar kii mooy candidat bu ndakaaru moom mi ngi liggéeyee Seras moom yàpp lay jaay maanaam ndawal lay jaay kii moo fi représenté waa Dakar insha allahu bismillah da tànn benn question mooy doon sablaaj sëriñ Khadim Jaxate kafrin sëriñ xaadim jaxate Kaffrine moom moo représenté région de Kaffrine moom nee na accessoire téléphone lay jaay maanaam yi jëm ci wàllum téléphone ak yu mel noonu bismillah da ngay tànn fi ab question mooy doon sab laaj sëriñ Kéemaan Gay Tamba sëriñ Kéemaan Gay Tamba moom it moo nekk région de Tamba day jaay accessoire téléphone lay jaay doon commerçant Serigne Kémane Gueye moo représenté région de Tamba bismillah tànnal fi benn question mooy doon sab laaj Abdoul Ahad Diaw Diourbel Abdoul Ahad Diaw Diourbel moom mooy candidat wu Diourbel pièce détachée lay jaay maanaam li ñuy jëm ci oto moom yooyu lay jaay bismillah nga tànn fi ab question mooy doon sab laaj sëriñ Moustapha Fall Matam kon lii mooy li nga xamante ni ñooy candidat moom nee na commerçant la ay mbuus lay jaay ay mbuus kon kii mooy ki représente région de Matam ci kàttanu yàlla kon ñii mooy ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi nga xamante ni ñoom la ñu tànn tànnin wi nag nekkul dañoo ñëw rek jël leen dañuy dem ci ab marché wax ni ana ñi mokkal alxuraan fii ñu boole leen laaj leen laaj yi nag day doon ay laaj yoo xamante ni lu ci ëpp ay runge lay doon ku xam ndongo daara ak runge ni mu demee ndax na alxuraan boo ko bàyyee problème bi ngay njëkk am mooy runge te runge nag ku mus sa mokkal alxuraan ko def ki xam daa jàng alxuraan fu mu ca yem du runge ndax lépp ki jàng lépp rek moo mën a runge ñooñu lañ doon tànn kon ñii ñooy ñi nga xamante ni ñoo war a représenter incha allah réseau yi nekk fii ci Sénégal ñoom ñëpp nag doon ay commerçant Cheikh Bassi yitte ji mu am mooy bis bu ñu jógee fii bu ñu delloowaat seen marché mën a sukkandiku seen bopp ba formé ñeneen ay nit ci kàttan suñu borom subhaanahu wa taala muy liggéey bu sell kon Serigne Ndiassé bismillah moom it ñi ngi ko jëlee ba Saint-Louis ngir mu mën a tàmbali bokk ñi ubbi bis bi bu ko defee incha allah ñu tàmbali liggéey bi Serigne العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بحق يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا ومولانا ومصطفانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلى أهل بيته وخديمه الشيخ أحمد ابن محمد بن حبيب الله مولانا الشيخ أحمد بن رضي الله عنه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 إنك سميع الدعاء ربه قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا أن الله يبشرك بيحيى

أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي شفاعتي عاقر قال كذلك الله الله الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال ربي اجعل لي آية ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال قال قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ويتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم summa taliinu juluuduhum wa quluubuhum ila dikrillah dalik dalika huda allah yahdi bihi man yashaau wa man yudlil illahu fama lahu min haad afaman yattaqi biwajhihi suua alcadaabi yawma alqiyamati wa qiila lilzalimina duuquu wa qiila lilzalimina duuquu afaman yattaqi biwajhihi suua alcadaabi yawma alqiyamati wa qila zuqu ma kuntum taksibun kadaba alladina min qablihim faatahum alazabu min haythu la yash'urun faadaqahum allahu alxizya fi alhayati addunya waladabu alaxirati akbaru law kanu ya'lamun wa laqad darabna linnaasi fi hada alquran min kulli mathal ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون waaye wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyaani mathala alhamdulilahi bal aktharuhum laa ya'lamuun qulu alhamdulillah qulu alhamdulillah sigaaran wa kibaaran dhukraanan wa inaathan qulu alhamdulillah alhamdulillahi al-waahidi al-jabbaar الحمد لله الواحد الجبار الحمد لله الواحد الجبار يا فرض يا صمد ويا فعال لما يريد الحمد لله الواحد الوهاب وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ونبينا ومولانا ومصطفانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلى أهل بيته وخديمه الشيخ أحمد ibnu muhammad ibnu habiballah mawlana cheikh ahmad bamba radiallahu anhu wa man tabiahum bi ihsan ila yawmi din wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di jéglu baax baax di ñaan ci màggu yàlla mboolem ku fi teew rek yàlla faj sa sa aajo zahiran wa batinan di ndokkeel bu baax mboolem ab dong may ma rek ndar laa jox maa ngi ndokkeel mbooleem ab dongo boo nga xam ni bàyyikoo nga fa nga bàyyikoo ñëw ci bis bi ngir jëmmee alquran waaye di ndokkeel albashir mi nga xam ni mooy promoteur u ndongo daara yi li muy def moom mënu ko waaye bëggam ci alquran ak fonkam ci alquran ak nammatal bi nga ko nàmpatal ci alquran rek moo waral mu def li yàlla na ko yàlla may yeneen ndam yu gën a kawe di wax ni mbooleem ku fi teew ngir jongante